pourquoi duñu voté teguñu ko fenn on est des citoyens dañoo war a voté ñun xeexuñu dañoo sañse bëgg a voté kon dañu war a bàyyi ñu voté c'est notre devoir. lan lañ leen wax ci seen carte d'identité yi. su suñu carte d'identité yi dañu ne ñu waruñoo voté te pourtant liñ ñu bañ. te seen vote suñu bureau vote la liñ bañal ci suba xam nañu ko voté liñ bañal. ci suba xam nañu ko voté fii waa Pikine ñu voté fii. waa Dakar ñu voté fii waa. da ngeen jàpp ne am na ñi ñu jëli feneen ñi ñëw. am na ñu jëli feneen. ñoo ci teg suñu bët am na ñu ci suba bureau 27 am na ñu voté léegi ñu ne duñu voté ñu def ngi gis image yi en direct lii mooy image bi nga xam voilà day leer waa Amadou Mbaye

xeexuñu dañuy voté dara a voté mi ngi ni mboolem ko xana ne war ngaa voté ma sar école ay numa di lañ la sanni na la biro nangam fa nga wara a voté man ma ngi ni école ay numa di la wara a voté numéro 26 mi ngi ni keur ma sar biro numéro 26 école ay numa di ya ngi dégg Macky Sall dictateur bu maga mag la dañ na won Sonko ñi maanaam ñi ko topp ñu identité fi jeune yi fi taxaw 20 ans 22 ans 23 ans ñepp a yor identité nee nañu nag kenn du voté indi seen i gendarme teg fii léegi nag kenn du fi dugg kenn du fi voté loolu jaay doole la ni ñu jaayee woon Sonko nag ba joxuñu ko fii ca parrainage maanaam ñi ko bëgg noonu lañ leen jaayee doole ne leen kenn du fi voté. gis ngeen ku dëkk dégg naa benn waay bu boo xam ne Sénat la nekk nee na ku dëkk Pikine voté wu fi c'est faux information bi c'est faux man gis naa ñoo xam ne Pikine lañ dëkk comme man département Pikine lañ vote fii lañ voté. dégg naa benn waa bi dëkk Sénat wax ko mais c'est faux ñëpp fii la ñu orienté ñu war a voté ñu indi ay gendarme nee na di jot ay instruction nee na ñooy fii ku dëkk maanaam ku nekk département voté dégg ñu ko fenn lu toll ay mooy si mooy bureau de vote numéro 27 bu ñu leen waxoon ni ñu ne préfet nee na pour ngeen ñëw mais fii maanaam département Pikine fii lañ doon voté mais dañoo dem ba yàgg nee nañu dañoo jot ay instruction préfet moo woote na ku dëkk ba mu fi voté te teguñu ko fenn Mon élection yee passé fii laa voté woon fii laa war a voté waat waaw da ngeen message yi nga xam ne nag moom la a ngi en direct fi nga xam ne nag Sene News euh, gis ngeen la population s'est révoltée parce que fu mu toll nii euh, ce qu'ils demandent moi, euh, leur droit de vote parce que ñu ne ñoom bëgguñu xeex gàmmu ñu dem de l'autre côté aussi ñu jël ay réaction yi parce que ñu ne ñoom xeexuñu dañoo ñëw pour mon a def li nga seen acte de citoyen moy dañu bëgg voter kessé donc euh, lolu moy information bi nga xamné nak nag euh, bi ma leen mëna jox fi nga xamné nak nag Kër Massar ndax euh, gis ngeen il a fallu que mu am li nga xamné nak moy les forces de l'ordre ñu mëna évacuer li nga xamné nak mom moy population bi nga xamné nak ñom ñoo nekkoon fini di réclamer wu li nga xamné nak mom moy sen droit de vote actuellement ni gis ngeen y a juste une foule am na foule waaye am na tam ñi nga xam ne nag ñoom ñooy takk deer yi ñëw pour mën a encadrer li nga xam ne moom mooy foule bi fi ñëw ñoom ñëpp lu ñuy wax mooy. voilà en attendant ñoom ñëpp lu ñuy wax mooy dañoo yor seen carte d'identité war a voté ñu xañ leen ko. yaa ngi gis si nii léegi man suba ba léegi nii yaa ngi déggal ni bureau 8 moo ngi nii moom laa doon voté. bureau 8 fan la nekk. moo ngi nekk école ma ma kii nii école bii nii nu te kii li gën a garaaw Kër Masar la. waaw Kër Masar la a waaw Kër Masar laa gis ni ñu bind bi ma ràññee ba egg bi ma ràññee ba egg ñu ne ma sa tur nekku fi da ngay dem école unité unité 14 ma dem foofu noonu rangaat ba egg même chose ñu ne ma da ngay ñëw nga dem ci classe 27 ma ñëwaat fii classe 27. aussitôt même noonu la demee quoi suba ba léegi daal maanaam huit heures ba léegi maa ngi jël sama xaalis maa ngi paas te mënuma mënuma am man Scat Urbam laa jógee ñu ne ma duma fa voté ñu ne ma demal Pikine ma dem Pikine paasaat ñëwaat ba fii bi ma ñëwee ci école bi ñu ne ma doo voté ñu ne ma wiiri fii ma ñëw fi dugg fii ñu ne ma doo voté bureau vingt vingt quatre fan nga daan voté man Escar Urbam laa doon voté. doo voté Escar Urbam fii Kër Kër Massar Kër Massar laay voté ma ñëwaat ba école bi ñu ne ma fii doo fi bureau bi ngay voté te doo fi voté pour lan. pour lan damaa ci suba ci suba heure am na ñoo xamante ni euh, dañ doon voté ñi nga xamante ni dama dabar Pikine lañ nekk doon nañ voté naajement bi ñu xamee ne ñu ngi leen di doo doo yi métti. ci boppam moo ko arrêté man xam na ñoo xam ne maa moom ñoo bok ñoo bok benn quarante parce que voté lu ñu la ñuy remplir. comprendre nga ñu ñëw éliminer loolu. donc da ngeen jàpp am na seen morom yi nga xam ne yéen a bokk benn département ñu doon vote nañ ba dem vote nañ ba dem kuma mu am nday moo fi ak kuma mu amul nday ñoom xam nañ ne daanu moo tax ñu bo ñoom moo tax ñu def tappale bi mais mais am na ñoo xamante ni vote nañ bu yàgg bañ dem seen yoon. grand problème 40 waru nekk problème xam bi normalement bu fekkee dañ ne 40 bi warloo ko voté jëlal sama 40 nga yóbbu ko am dawal renfé ñu jox la sa carte nga dugal ko mais ay tappale école cité école cité Aynou Mani euh, bureau de vote 24. mi ngi nii moom la xam nga ni ma ànd nekk anamu ma ñëw naa ba fi ñu ne ma duma dugg pour lan. problème bi yëpp ñoom ñoo ko indi ñoom ñooy xeex ñooy tooñ ñooy njëkk a dóor ñooy xeex ñooy gañe. am na ñu commencé voté am na ñu commencé voté bu demee ba si kanam ñu xool affaire yi ñu xool. Lisi, ñu xamni affaire bi mu ngi kii ñu arrêté ñu ni ñu ni képp ki dañuy arrêté ñi nekk fi rek lañu voté dama dugg si nga voté jomaay tikem dafa jeex tak carte yëpp a tak yeen tam est ce que euh, du yena indi situation parce que ñu ñëk voté dañ leen wax ngeen tam yeen bo leen gisé ni ngeen ngeen dal di tan ñi ñi ci bëre ngeen bàyyi euh, suñu ministre bi est ce que du lool mo wara réaction comme ni ngeen ko waxé non parce que dafa depuis 2021 ba lég dafa am lu jall Sénégal

nañ bàyyi commencement bi carte gi dafa leer dañ leen dóor dóor yi métti looloo tax préfet woote arrêté ko ñun soxla dañ leen a dóor ñoom xam nañ ne Ousmane Sonko moo fi nekk Diomaye Faye moo fi nekk moo tax ñu tere ñoo dugg ci biir fii ah xam nañ ne ni fi taxaw ñëpp kenn ki lañ jox suñu yi Sonko rek loolu lañ xam bii rek lañ bii rek grand bii rek bii rek bii rek lañ yor Amadou Ba nag gëm yàlla mu dem xooli leneen Amadou Ba nag gëm yàlla seeti leneen école yi kay gis lii loolu buntu école bi géejawaay lañ ci bind ak ñoom ñu ne suñu carte yi ñun di voté kon xanaa ñun suñu rek yi diplôme yi ñu am du validé man carte bi ma yor dama ciy dem banque dama ciy am passeport dama ci am visa tey bu ñëwee ne carte bi baaxul ñoom ñoo ñu ko jox te école bii ñuy wax lii loon école bi porte bi Guédiawaye lañ ci bindaa Pikine bindu ñu ci Kër Massar ak Jaxaay kon na bu ñu nee dañu foore ñoom dañuy wax lu leen neex dëkk nag dañ koy teg ci yoon parce que bi xeex jotee dañ ne nañ teg xeex bi si suuf ba élection jot ku nekk xeex sa carte dañ xool li ñuy def waxal ma suñu 5000 yu yàq si dëkk bi après dinañ digaale ak moom nag waaw waaw ma daal di jël yaay booy bi tam ndax dañuy jublé ci kanam de leen yaay booy da nga mën a sànni ci comme kat waaw man nag li ma métti moo métti ñii ñëpp parce que en tant que citoyen nga yor sa carte d'identité ñu ne la mënoo voté dafa neexul say morom di la romb di voté di dem mel ne dëkk bi dafa am kumba am nday ak kumba am. voté lan moo la tere voté lan. parce que ñun suñu carte d'identité département bu Pikine lañ ci def man mii bi ñu génnee carte d'identité yi département bu Kër Massar man dem naa jëli sama kar d'identité wër ko ci fi ñu koy joxe yëpp ñu ne ma carte d'identité bi génnul bi ma demee woo waa daaf dañ ne ma carrément sa carte d'identité defaruñ ko il faut timbre 10 000 lan laa ci man su ma amul njëgu timbre dinaa ko defar ba ma woowee waa daaf ne wër naa sama carte d'identité fépp dañ ne ma kon nga jënd timbre 10 000 ñu défaral la jaxay mais xam nga lolu neexul dañoo dugal alerte ñu ne ñi nekk ci département Pikine yépp ñu ko def sen carte d'identité mën nañ bureau 27 kon ñun am nañ droit voter. ndax ay citoyen la ñun ñoo moom suñu réew te ñu voté wul ñi ñëpp ay jeunes lañ ñii nga gis ñëpp ay jeunes lañ te rek ñoo mën ñoo yor réew mi ñu bëgg a ñu ne ñu doo voté neexul. bu dee gouver bu dee lii moo ñun ñun en tant que sénégalais bu dee lii moo ñu gouverner waat. gouverner waat kon carte d'identité bi sax amatul valeur. bu dee lii moo ñu gouverner waat bu mënul voté bu dee lii moo ñu moo ñu gouverner waat soxna si may ñu gouverner waat barki arxuraan kon ñun ñu préféré xalal xalal ñu nekk xalal nagu sarax ñu lay ñëw ñun ñëpp moo gën mais duñ gouverner waat muy mom ak ñumu andal duñu gouverner wat voilà déjà commencé nañu sandi li nga xam momay grenade grenade lacrymogène gamu gamu gamu gamu gamu dañ koy sandi fi gamu ñu koy sandi suñu taw de voilà échauffourée gis ngeen keur Massar ni la mujjé gars yi ñu ngi gàmmu nii lañu mujjee dañuy daal di jël li nga xam ne mooy grenade lacrymogène sànni ko ci kaw citoyen yi ñu ñëwoon na fi nga xam ne nag euh, mooy bureau de vote di réclamer seen droit de vote gis ngeen situation bi ah, finalement dañoo mujjee sànni li nga xam ne mooy grenade lacrymogène ci kaw des citoyens ñi doon réclamer uniquement li nga xam ne mooy seen droit de vote parce que ñu ne nous avons de vote de l'autre côté grenade nous côté population donc euh, c'est juste pour vous signaler que nous sommes euh, au niveau de Kermassar. il y a y a y a pas mal de citoyens qui sont venus pour euh, exercer leurs droits de citoyen mais à leur grande déception euh, ils n'ont pas pu retrouver leur lieu de vote. Et ils sont restés ici pour réclamer euh, ce qu'ils ont de... Voilà, euh, excusez-moi, excusez-moi, c'est juste en train de... je, suis, je suis en train de voir le dispositif qui est devant nous. Voilà, Gamou, il y, a juste, comme nous noir, est français, oui, ils réclamaient juste hein, leur droit de vote, c'est-à-dire entrer, le droit de citoyen, entrer,

bureau de vote bi nga xam ne nag moom moo fi nekk mun nañ leen wax ni gendarme yi actuellement ñoom ñoo daal di jël li nga xam ne nag euh, moom mooy contrôle bi waaye tam ñi nga xam ne ñoo yoon ndaw yi nekk de l'autre côté ñu ngi ci euh, ruq yi waaye boo moytulee nag dina mujjee doon li nga xam ne nag euh, ay sànnante xeer la contre li nga xam ne nag moom mooy ay sànnante grenade lacrymogène donc pour le moment waa gendarmerie ñoom ñoo daal di sànni li nga xam ne nag moom mooy des grenades pour jéem a tas population bi Euh, fu mu toll nii gis ngeen dispositif bi nga xam ne moom ngeen di gis en face dispositif bi nii moom ngeen di gis en face fi nga xam ne nag moom mooy Kër Massar euh, population bi nag lu ñu gënoon euh, ñaxtu mooy dañoo ñëw ci bureau de vote bi nga xam ne foofu la ñu yàgg voté ci li nga xam ne moom mooy explication ñu ne bu ñu gisee nii li nga xam ne nag mooy ay bulletin bulletin yi nga xam ne nag tànnuñu ko nu mu bu ñu gisee ni sakkan na ci la ñuy daal di wax ni ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Euh, jeunes yi nekk ci bunt bi nii ñoom mënuñu fi voté waaye ñu ne lu leen gën a métti mooy dañuy daal di dugg ñu gis li nga xam ne nag mooy seen numéro ci li nga xam ne nag moom mooy euh, bureau de vote yi gis seen numéro de numéro bureau de vote waaye gis tam li nga xam ne nag moom mooy seen centre waaye nag bu ñuy ñu ñëwee bay bëgg a dugg pour dem voté ji dañ leen koy tere parce que dañ leen wax ni mënoo leen fi voté ñu ngi leen di baaganteloo entre Pikine euh, Kër Massar ay Noumaadi yi ak yeneen gox yi donc euh, Mbokhi, yi internet seen news les la am fini comme information bu faar fi nga xam ne nag euh, moom mooy Kër Massar dinañ xool fii ba ci kanam parce que déjà euh, ndaw yi ñu système bi lañ bëgg def pour 18 h bu joté ñu mën leen xagn li nga xamné moy sen droit de vote parce que xam nañu ni à partir de 18 h lañuy tej li nga xamné nak moy urne ñom dañoo japp ni à partir de 18 h dañ leen bëgg xex ba 18 h jot 18 h bu joté euh, du ñu kenn mu dugg fi nga xamné nak mom moy euh, ci bureau de vote yi su ko defee nag euh, ñoom seen devoir citoyen ñu xagn leen ko donc pour le moment population bi nga xamné nak ñom ñoom ñoo fi nekk gis ngeen ñom déplacé wu nañu gendarmerie yi ñu ngi gëna jël espace ñu ngi gëna pousser ñi nga xamné nak ñom ñoy population bi à ce que ñu baña a nekk ci kanamu bureau de vote donc gamu nañu dem de l'autre côté aussi ñu xol ñu ñu xool naka la fan la ñuy mujjee ak euh, ñi nga xam ne nag les populations yi ñu dàqoon ba ñu dugg ci ruq bi mais lu ñu leen mën a signaler mooy y des milliers des milliers de personnes ñi nga xam ne dañoo euh, déplacé wu ñëw parce que dégg ngeen sànq ni jël naa fi benn soxna benn yaay booy mu may wax ni moom daanaka euh, mun naa wax boori parcelle sa la jógee ay côté Cyprès ah la jógee am na ci ki nga xam ne nag mu ngi may wax ni mu ngi jóge depuis Pikine waaye am na ñi xam ne nag jógee